ci bés bi ñuy amal bac bu atum 2024 ci centre d'examen bu l'école Sacré-Cœur gannaaw juróom-ñett waxtu ci suba ñu daal di jox candidat yi seeni épreuve daanaka nu tàmbalee tàmbale nañ si dal ak si jàmm parce que épreuve yi commencé na à temps en tout cas daal depuis bu ñu tàmbalee épreuve ba léegi amuñu yenn jafe-jafe ci bileb centre ñaari jury ñoo fa ne mu di jury 1380. quatre séries ñoom noo nekk ci jury bi te effective bi euh, mi ngi ci euh, ñeenti téeméer ak fukk ak ñaax mais am na juróom ñeent ñu absenté. ak jury 1381. donc sama jury bi am na ñetti série série S1 euh, série S1A ak série s Euh, maanaam am naa ci candidats yi trois cent soixante seize candidats euh, si si si série yooyu. file jël nañu matuwaay yëpp ngir candidats yi mën a amal seen l'examen nu mu ware buñ ñu duggee si saa euh, maanaam preuve yi amul benn problème te étudiants yi ñoo ñu élèves yi tamit ñoo ñu wax ni ki am nañu benn problème te tamit gis nañu surveillants yi ñëw nañu. waaw teewlu ji. dans l' ensemble ñëpp euh, amul benn jàmbat kenn rek moom moo newoon au début yaramam dafa xawoon na kii mais après nee nañu dina mën a continuer quoi. gannaaw juróom-ñeent waxtu ci suba ba tey mën nañoo gis benn candidat ci ëttu lekkool bi ñu koy woowee place Canada. pour série S yi euh, tàmbali nañu épreuve science physique et pour série L yi épreuve philosophie quoi philosophie français ak philosophie arabe. ci ab dal mën nañoo am lépp. mu di ay kàddu père André Coindre te ñu taf ko ci lekkool bu Sacré-Cœur ba tax na candidat yi war cee bàyyi xel bu baax ngir seeni l'examen bu baccalauréat bu atum 2024